دعوة وربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها دعوة وربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للرعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وألها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس سلفي وألها لأي جليس نحو عظيم وفخر أنيس شفت القيم أبو إدريس علي وحكمة مسخر ليها علي وحكمة مسخر ليها دعوة ربي يبارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها دعوة ربي الله سبحانه وتعالى أه di dalal sunu kilifa muy fadilatu cheikh docteur Mohamed Ahmed Lo xafizahullahu wa raah euh, comme ngeen ko xamee ci programme bi daanaka béréb bi moom mu ngi koy miin daaw waxtu bi dikkoon na fi defaloon ñu fi waxtaan bu am solo waxtaan bi aju woon ci coordination bi nga xam ne euh, mbokk jullit yi nekkee gox bi muy juróom-ñaari béréb ñoo ko ñoo ci jàpp muy ak mbokk yi nga xam ne station lañu muy Agifort tey incha ñu ngi koy dalalaat ci birab bi di bég bu baax a baax a ci daje bi ñu dajewaat ak moom fii di ko ñaaral yàlla subhaanahu wa taala yàlla sàmmal ñu ko yàlla aaral ñu ko yàlla dëgëral taxawaayam li muy liggéey ci diine bi ñépp ci tegandoo bët déggandoo ko it kon duñ def lu dul ñaanal ko yàlla sàmm ko te aar ko dëgëral taxawaayam it incha allah comme ni ngeen ko xamee tey mu ngi indil tomb boo xam ne tomb bu am solo la tomb bu màgg it boo xam ne it bu ñëw it ci jamonoom la waaye duñ ci xuus dañuy jox sunu mbokk Muhammad Kulibali incha allah mu sànni ci ay kàddu jazakumullah xayran rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala ci tawfiq bi nga xam ni defal nañu ko ñu doon ay nit ñu ko gëm waaye di yittewoo di daje di fàttalante suñu wàllu diine li nga xam ni moom lañu fas yéene fàttalante ci jotaayu tey bi mawdu la bu am solo boo xam ni bokk na ci yërmande yàlla subhaanahu wa ne farataal na ci ñi ko gëm moo xam xale yi la moo xam mag yi la moo xam góor yi la moo xam jigéen yi la moo xam ñi jàng la moo xam ñi jàngul la ne ku ciy julli tari faatixa dinga ko ñaan yàlla dina siraat al yàlla yàlla nag ñu teg ci yoonu njub mawdu bi mooy al wa atharuha ala al fardi wal mujtama jubal wala tegu ci yoonu njub ak jeexit yi nga xam ne dina ko am ci kenn ki maanaam doomu aadama ak ci société bi ki nga xam ni moo ñu ko war a traital mooy cheikhuna wa ustaazuna wa waliduna ad docteur Muhammad Ahmad Lo xafidahu llah wa raa euh, kon dañ koy ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla dëgëral làmmiñam may ko li nga xam ni moom mooy ixlaas ci lépp loo xam ni mi ngi koy def lépp loo xam ni tamit am na ko yéene jottali yàlla yombal ko te ëllëg yowmal qiyaam mu ko fi misaani xasanaatihi kon cheikhuna tafaddalu mashkurina majurin bismillahi rahmaani rahim inna alhamdulilahi naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shururi wa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sala allahu wasallam alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi dellusiwaat di sant sunu boroom tabaraka wa taala ci tawfiq ji mu ñu defal ba ñu dellusiwaat ci bërëb bu sell bi muy jàkka ji war fee dajawaat ak mbokk yu tedd yi di waxtaane ab tomb ci sun diine di jagleel ak cant ñi nga xam ne ñooy waroom dalukaay bi muy ñi nga xam ne ñooy saytu jàkka ji yore ko yaatal seen mbokki jullit ñu defe woon ko fi daaw ñëw itam di ko fi defe ren gannaaw loolu ñuy sant ndaw ñi nga xam ne ñoo jóg boole seen bopp ba nekk ab coordination di ittewoo jàng seen xam-xamu diine ca na mu gën a tegoo ci aw yoon ba at mu nekk ñu organiser lu mel nii àndandoo dajaloo toog déglu kenn ci seen ñi jàpp ne ñoo leen tane ci dara ci wàllu xam-xam ñu baaxe leen la ñu xam su ko defee ñi continuer nekkaat ca seenub liggéey ba déwénati loolu yàlla na yàgg te sunu borom tabaraka wa yàlla na leen defal tawfiq te boole ko noonu ñépp def jàkka ji mu nekk kër goo xam ne kërug leer la kërug jaamukaayu yàlla la te lu ñu fi jaamu yàlla mu sell te yàlla nangu ko tomb bi nag ni mu ko waxee al istiqaama wa athaaruha mooy tomb bi danañ ñëw ci définition bi moo tax duma taxaw foofu ci wax al istiqaama mooy lan waaye rek tomb bi jéem nañ koo séddale e, juróom benni xaaj danaa gaaral juróom benni xaaj yi su ko defee benn bu ci nekk it danaa ci romb rombin woo xam ne wu gàtt la ndax xam ngeen ne bésub tey bii dafa am ñaari programme yu xaw a daje yoo xam ne bii mooy bu njëkk bi suñ ci jógee am na beneen bu nuy négaat boo xam ne fa lañ war a daldi jublu ji moo tax dañuy jéem fii ba benn waxtu fexe ba bu benn waxtu di jot daal fekk nu nekk ca biti di dem loolu la ñuy ñaan mbokk yi noonu lañ ko bëgg a tëre incha allah soo ko defee lu gàtt gàtt danañ fi am lu jege ñaari waxtu tomb bu njëkk bi mooy xamle listiqaama moomu mooy lan kon mooy définition bi ñaareel bi mooy ahamiyatul istiqaama fi xayaatil muslim solo si nga xam ne listiqaama am na ko ci dunduk jullit bi ñetteel ba arkaanu listiqaama ponk yi nga xam ne ñooy ponki listiqaama nga xam ne benn mënu cee ñàkk ngir nit ki mën a am loolu yi ñu tuddal istiqaama ba ca tegu mooy wasailul istiqaama ki bëgg a am listiqaama fan lay jaar yan mooy yi nga xam ne su ko defee dana am listiqaama ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala ba ca tegu di asaarul istiqaama muy jeexit yi nga xam ne listiqaama daf koy jural ki ko am meññet ma ba ca mujj nag di asbaabul inxiraaf an il istiqaama eh, gàllankoor yi nga xam ne bu dalee nit ki loola daf koy jële ci al istiqaama yàlla nañu yàlla musal ca yooya tomb bu jëkk bi al istiqaama ci kàllaam ak arab suñ koy wax Euh, istaqaama ci waxi arab mi ngi jóge ci qaama lépp boo ko toppee day dellu ci al i'tidaal wal istiwa maanaam loo xam ne daal dafa jub ba noppi amul benn dëng-dëng moo tax borom bi tabaraka wa bi muy melal téereem bi nga xam ne mooy alquranul karim daf ne walam yajal lahu iwaja téere la boo xam ne amul dëng-dëng kon dafa jub xoj diine lislaam ji sax dafa ne diinan qiyaama diine joo xam ne moom it dafa jub xoj waxaat ne dalika diinul qayim kon bu dee ci wàllu kàllaama suñu waxee listiqaama daal li muy firi mooy lu jub lu jub ba noppi ay cëram méngoo maanaam amul lu ëpp ak lu yées loolu moom lañu tuddee i'tidal euh, maanaam moom yi nga xam ne ci luxa la nag soreewut ak définition bi nga xam ne moom lañ jublu dëgg-dëgg ci terme boobu suñ koy wax ndax al ci boppam dafay firi li nga xam ne dafa jub xocc di dem dafa jub xocc ba noppi di dem li ñuy wax aljaada li ngeen di wax tout droit nga xam ne amul jàdd fii amul jàdd fi dafa continuer rek di dem loolu dañ ko koy tudde loolu nag lañuy tudde ak taarif bi nidd xamle dara di ko définir fekk yaa ngi koy définir leneen lu mel ne moom ngir mu mën a leer danañ taarif dara yit maanaam définir dara fekk da ngaa jël contraire am indi ko ngir mu mën a leer moo tax ci taarifu al istiqaama dañuy wax ne mooy diddu zayri maanaam safaanub dëng safaanub dëng bokk na ci définition yooyu listiqaama bu dee dañ ko bëgg definiir nag te dugg ci biir di ko xool pièce par pièce loolu la ñuy tuddee ak taarif bil wasf maanaam melal dara ngir définir ko ngir xamle ko bu boobaa dañuy gis ne istiqaama dafa am ñaari étape étape bi ci jëkk mooy suluuku sabili rachadi wal i'tidaal soobu yoon woo xam ne dafa jub te méngoo bu la neexoon nga ne soobu siraatul mustaqim soobu yoon wi nga xam ne yoon wu jub la ñaareelu étape bi mooy athabaatu ala dalika xata almamat bi nga ko suuboo ba àggal nga sax ca nag ba kero ngay wuy ji sa boroom ñaari étape yooyu ñooy yi nga xam ne mënuñoo ñàkk ci listiqaama su fekkee dañ koy xool ci biir lool nag lañuy ñuy tudde al istiqaamatu taamma boo xam ne dafa mat sëkk jub xocc goo xam ne dafa ànd ku mat sëkk mooy jaar ci siraatul mustaqim ba noppi sax ca nag ba kero ngay wuy ji sa borom moo tax borom bi tabaraka wa taala di wax ne inna alladina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu tatanazalu alayhim almalaika balaay ji jeex beneen bi mu ne inna alladina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ba noppi sax ca loola su mastaqaamu nee na ñooñu amuñu lu ñuy ragal fañ jëm waaye amuñu lu ñuy tiit itam seen gannaaw muy fi ñu jóge moo tax al-Qurtubi bi muy firi inna alladina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu daf ne i'tadalu ala taa'ati llahi aqdan wa qawlan wa filan wa daamu ala dalik nee na mooy ñi nga xam ne daal dañoo jub ci dañoo jub xocc ci topp yàlla ci wàllu pas-pas ak ci seeni wax ak ci seeni jëf ba noppi nag sax ca loola ba noppi sax ca loola noonu al imaam al Qurtubi firee laaye jooj yi daanaka luñ mën a wax ci listiqaama lu mu bari bari bari génnul loola muy jub xocc ci topp yàlla ci pas-pas ak ci wax ak ci jëf ba noppi sax ca loola loolu mooy lépp dëgg-dëgg listiqaama nag su fekkee dañ koy définir kon ci benn définition boo xam ne nit da koy mën a jël mokkal ko mooy mulaazamatu siraati almustaqim fi alaqaaidi wal aqwaali wal afaali wal axlaaq maa riaayati alictidaali wal istimraari ala dalik kon daal mooy taqoog siraatul mustaqim mu yoon wu jub wa ci lan ca pas ya ca wax ya ca jëf ya ca jikko ya ànd ak ak digg doomu ànd ak ak digg doomu ba noppi sax ca loola eh, yooyu tomb benn mënu cee ñàkk listiqaama bi ngir mu am faaw mu am ci pas-pas bi pas-pas bi bu jubul listiqaama mënta am wax ji la muy wax mu di ko seet di ko segg di ko xool mënul ñàkk ay jëfam ay jaamu yàllaam yooyu yépp danañ ci ñëw ay jikkoom na mu war a mel ànd ak sàmmoonteeg yam gi digg doomu gi bañ a ëpp bañ a yées mënu caa ñàkk sax ca loola it munu caa ñàkk ndax su ko defoon tey ëllëg mu soppi ko doon leneen itam listiqaamaam day daal di yàqu wala yaasu billah kon daal bu la neexee nga ne mooy topp yàlla akub yonentam sax ca loola ba keroog ngay wujj sa borom topp yàllaa ko yonentam sax ca ba keroog ngay wuy ji sa boroom ku ko yàlla may may na la listiqaama yàlla nañu ko may ñaareelu tomb bi mooy ahamiyatu al fi xayaati muslim solo si nga xam ne listiqaama am na ko ci dundu li nga xam ne mooy jullit bi duñ ci tudd tomb yu bari waaye danañ ci tudd xadiis bi nga xam ne saxaabi bu mag muy sufyaan ibnu abdillahi thaqafi dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko daal dama bëgg nga ma wax ma tey ci biir lislaam dama bëgg nga wax ma wax joo xam ne su ma fi jógee dana ma doy ba duutuma laaj kenn dara laaj bu rëy lu rëy rëy ñaan wax ma loo xam ne su ma fi jógee jaratul may laaj nit dara ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam na ne moom la yàlla jox jawaamiul kalim muy ay baat yoo xam ne waat yu gàtt lay doon yoo xam ne bu la ko joxee mën naa làmboo lépp mu ne ko qul amantu billahi thumma istaqim nee na ko gëmal yàlla waxal ne gëm naa yàlla ba noppi nag saxal ci loola loolu mooy lislaam lépp xadis bu gàtt boobu rek doyoon na ab conférence qul amantu billahi thumma istaqim ndax amantu billahi gëm yàlla ci boppam dafa làmboo mboolem arkaanul imaan yi nga xam ne moom la jullit bi war a gëm door a nekk ab jullit mi al imaanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al axiri wal qadari xayrihi wa sharrihi yooyu mu war a gëm yépp da koo làmboo yooyu benn bu ci nekk des ca war a taxaw seetlu ko xam nus koy gëmee ak boo ko gëmee yan jeexit lay indi ci yow kon mu ne ko li imaan làmboo daal yow gëm ko mu nekk say wax ak say jëf ba noppi nag istaqim nga jub ba noppi sax ca loola kon wax na ko lislaam léppam ci ay kàddu yu gàtt xadis boobu muslim génne na ko kon képp koo xam ne gannaaw bu mu gëmee yàlla dafa sax ci ndigali sunu borom tabaraka wa taala kooka mu ngi jaar ci listiqaama su continuer ca loola nag delluwul gannaaw jéngul ba keroog muy dajeeg boromam kooku moo am listiqaama gu mat sëkk ñaareelu tomb bi ci solo si nga xam ne listiqaama am na ko moo di borom bi tabaraka wa taala dafa digal ab yonentam digalit mboolem ñi ko topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem jullit yi mu digal leen ñu sax ci diine ñu am listiqaama noonu la leen ko digale ni ko sunu borom tabaraka wa taala fastaqim kama umirta wa man taaba maak wala tataaw fastaqim kama umirta laaya joo xam ne ju diis la ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ba tax na abdullah ibn mas'ud radiallahu taala anhu bi nga xamee ne eh, sufyaan moom mi ñu doon wax sànq dafa wax yonente bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko man de gis naa ne yaa ngi tàmbali di bijjaaw ndax xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi koy melal ci téere chamail ñi ngi wax ne bi mu demee ba toll ci juróom benn fukki at ak benn jëm juróom benn fukki at ak ñaar ci la ay kawar yu weex tàmbali di feeñ ci sikki mu yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi loola amee sufyaan di ko xool ba mu yàgg ñu bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam la ñu ñu ne ko araaka qad shibta di gis naa ne yaa ngi tàmbalee bi jaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne shayyabatni huudun wa axawaatuha mu ne suurat suuratu huud ak i bokkam yowma bijaawal abdullah ibni mas'ud radiallahu taala anhu mu ne day yonent bi jublu ci suuratu Huud gépp de waaye laay ji la jublu fastaqim kama umirta fastaqim kama umirta jubal jaaral ci siraatul mustaqim nañu la ko digale nañu la ko digale maanaam na ko yàlla bëgge loola du lu woyof waxul ne jaaral ci ak njub wala saxal ci ak njub ci nanga ko xemmeme wala na nga jàpp ne noona la wala na gën a woyof wala la gën a yomb waaye na ko yàlla bëgge foofu la diisaay ba nekk fastaqim kama umirta na la ko yàlla digale ba noppi ne waman taaba maak ak képp koo xam ne dugg na ci diine ji ànd ak yow moom it fal yastaqim na jaar ci siraatul mustaqim na nga ca jaare mu teg ci ne wala tataxaw bu leen bew mukk nag maanaam bu leen jaar ci siraatul mustaqim ba mu yàgg ngeen jàdd wala ngeen wàññiku innahu bima taamaluuna basir lu ngeen def nag mi ngi koy gis lu ngeen def mi ngi koy gis xam nga ne borom bi tabaraka wa taala bu demee bay wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko wax ne ko jaaral ci siraatul mustaqim nii la ko yàlla digale yaag mboole mu jullit te nag ngeen xam ne lu ngeen def maa ngi koy gis kon aay jooju woye fut te it dalay jox importance bi nga xam ne moom la listiqaama am beneen ba ca des ñetteel ba ci solo si nga xam ne listiqaama am na ko mooy borom bi tabaraka wa taala dafa digal képp kuy julli ak julli gum mën a doon faw nga jàng faatixa faatixa jooju ngay jàng yaa ngi ci joo xam ne ci ngay ñaane listiqaama yow jullit bi ihdina siraat al mustaqim kooku lu jullit sàggan sàggan ginnaaw ma ngay julli bis bu nekk dana ko ñaan ay yooni yoon dana ñaan yàlla may ko siraatul mustaqim mu jaar ci kon nag la yàlla jël saara bi nga xam ne dane farata la ci yow julli gooy julli gu ne nga jàng ko mu dugalal la ci lay joo xam ne saaboo boo jullee da ñaan yàlla mu may la nangam kon nangam joojee ju am solo la yàlla nu ko yàlla may te nangul nu ñaan googu nuy ñaan bés bu set yooyu day wone solo soo xam ne listiqaama am na ko amma ponki listiqaama nag ba ca jëkk ponk bu ñu ko waxee ci dara mooy loo xam ne munta ñàkk su amut day mel ne loola amut dafay jóge mi ngi mel ni rek bâtiment bii taxaw poto yi nga xam ne ñoo ko téye su amul woon ay poto bâtiment du fi taxaw loola mooy ay ponk listiqaama nag dafa am ay ponkam yu mel noona yoo xam ne benn mënu caa ñàkk ya ca gën a fés doon juróom juróomi ponk ba ca jëkk moo di wéetal sunu borom tabaraka wa taala wéetaluk ci sa jaamu ak ci la nga jublu ci sa jaamu li ñu tudde iraada sa iraada li tax ngay def yàlla sunu borom tabaraka wa taala di tax kon ci say pas-pas say wax say jëf ak sa yéene lépp dellu ci sa borom tabaraka wa taala loolu moom la ñu tuddee al ixlaas maanaam sellal yàlla tax ngay def yàlla tax ngay fas yàlla tax ngay wax yooyu munta bañ a daje ngir nga am listiqaama kon jàppal ne ponk bu njëkk bu mooy al ixlaas wa ifraadullahi taala bil aamaal wal aqaaid wal aqwaal looy def wala nga di ko jëfe wala nga di ko fas na borom bi tabaraka wa taala keese tax bu ca keneen am ab cër yàlla rek moo ko moom kookoy tomb bu njëkk ba ñaareel ba jëf yi ngay jëf mu doon ay jaamu yàlla fexeel ba loo ciy def lu ne na dëppoo ak na dëppoo ak sharia dëppoog sharia mooy lan mooy na dëppoog na ko yonent ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngale waaye bu mu dëppoo mukk ak loo xam ne yaa ko xalaatal sa bopp wala ñu xalaatal la ko nga dugal ko ci diine ji te bokku ca kooku mooy ñaareelu taw ngir nga mën a am istiqaama kon faw nga am li ñuy tudde mutaabaatu sunna gannaaw bu ixlaas jàllee muy li ngay def yàlla tax ñaareel bi mooy sa jaamu yàlla foo ko jële nga ne ah ca la yonent ba jàngale fa laa ko jële kon fexeel ba fépp foo tollu di def loo xam ne di def loo xam ne tuyaaba nga ci wut suñ ne laa lii foo ko jële sa tont na jege lool mu ngi ci alxuraan walla mi ngi ci sunna nga daal di noppalu kon mi ngi ci sharia koo koy ñaareelu ponk bi loo farlu farlu ci jaamu yàlla nag loo góor góor lu góor góor lu ci jaamu yàlla boo doon tudd yàlla guddeeg bëccëg di lenn lu nekk nga nekk ca fu la fekk fu ne yaa ngi kur kur yi ci dara te ñaari ponk yi dajewut muy ixlaas li ngay def kur kur jooje yàlla tax ñaareel ba kur kur jooje tegu ca la yonent ba jàngale woon su yooyu amut ab coono rek a fa nekk yàlla nañu yàlla musal ci loolu ndax kat ëllëg borom bi tabaraka wa taala ne am na ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw sonnoon lool ci jëf amilatu naasiba di jëf saxoo di jëfit nag guddi ak bëccëg lu ci lu ca tegu tasla naaran xaamiya yàlla na ci yàlla musal lool ci jëf wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jacalnaahu habaan mansuura jëf-jëf ju bare bare bare yàlla ñëw def ko pënd sànni ko mu dem lu koy waral ñaar yi bañ caa daje bu ixlaas amut yàlla taxut zéro amut solo bu ñëwee te teguwut ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci fétal la tegu ak ci ay xel ak i nattale ak fële laa ko jëlee zéro doo am njariñ kon ay tomb yu mat a bàyyi xel la ñetteel ba ngir listiqaama googu mën a am bokk na ci ponk yi mooy jëf ji ngay jëf di ca sonn ngir yàlla am na yaa ngi topp yonent bi waaye nag bul jéema yan sa bopp loo àttanut def ko ci daayirab li nga àttan borom bi tabaraka wa taala ku ne daa am loo àttan loo xam ne fa la sa kàttan yam am ku ne fa nga xam ne fa nga gën a mane fexe ba xam fu nga gën a mane nga gën faa farloo te bañ a sàggan ca ya ca des soo ko defee loolu la ñuy tudde al daal bañ a ëppal bul xiyaas sa bopp ci koo xam ne moo la raw nit ñi ni ñu rawantee ci ay kàttani yaram kii nga jékki-jékki gis ko mu yanu lu diis a diis nga jàpp ne ah moom kat ñaari loxo la yor ak bopp ak ñaari tànk kon lu mu mën war naa koo mën ñëw jël lu tol noonu teg ko ci saw loos te attanoo ko mën nga koo yanu ba noppi doo seqib jéego ndax munoo ko kon ki nga gis am genn jaamu yàlla gum nuur di ko def man ca loo xam ne lu jéggi dayoo la dëgg la di ko jéema roy di jéem ba ba àgg fa mu àgg loola mooy la baax waaye boo bëggee xëy xëy ne fi mu toll danaa fa toll te xamoo fu jaar moom ba àgg foofa da nga yan sa bopp loo te képp koo xam ne da nga dugg ci jaamu yàlla di yan sa bopp loo li muy tekki mooy da ngay mujj dem ba mu yàgg nga bàyyi dangay ngay mujj bàyyi ku dellu gannaaw ndax li nga attanut boo ko yanoo fa nga jëm moom soriwut tuuti ngay dox yenni ko te boo boo yenni ko lépp ngay boole teg ko ci suuf duutoo fabati dara moo tax yanul li nga àttan boo bëggee sab dox sori jaamu yàlla dañ ciy tàggatu comme ni ñuy tàggatoo ci ci des yépp ndax jëmmi jaamu yàlla dafa bari bu ñuy wax loolu nag noo koy waxee ci daayira maanaam ci géewub yi nga xam ne doonuñu ay farata farata yi moom képp ku nekk mu kàllaf la nekk farata ci yow da ko war a def comme ni ko ñépp di defee waaye nag bu farata yi jàllee ba fi lay ñëw nga xam ne foofu la góor yàlla yi di rawantee xoolal la nga man nga di ko jëfandikoo fexe ba mu sel jaar ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te la nga jël lum tuuti tuuti nga jëm koo saxoo ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na li gën ci jëf yi mooy la ci gën a sax donte dafa nekk lu tuuti sax afdalul a'maali adwamuha wa in qallat li gën ci jëf yi mooy la ca gën a sax doonte dafa néew kon loolu mooy ñetteelu ponk bi mooy bul ëppal ñeenteel ba mooy bañ a yées itam li nga man itam nag bul def lu ko yées ndax loolu ak dellu gannaaw lay tudd kon boo booree ñaari tomb yooyu ñetteel bi ak ñeenteel bi mooy nga équilibre bul yanuloo àttanut waaye bul àttan dara ba noppi woo ko yit nag yëg nga ne yow mii am na loo mën a jàng ci alxuraan bés bu nekk mën nga koo sasoo di ko jàng bul jàngalu lu yées loola bés bu set jàngal la say tudd yàlla say naafila say koor yi ngàtt nga ci weer wi seetal li nga xam ne wóor na la ne mën nga ko te boo ko tàmbalee dana mën a wéy nga di ko def waaye bul toog loxo kese rekk nag daal di ne dama bañ a yanu lu ma attanut ndax foofa la la seytaane di gañe itam nag seytaane bu sañoon da dul def boo demee bay def nag boo sañoon mu dugal ci leneen lu ca bokkut wala mu jëflanteeg yow neneen noo xam ne noo dul man la ba ca tegu moo di ponk listiqaama bu am solo la mooy al istiqaamatu fi zaahiri wal sa njub goo gi nga xam ne ak jub xocc la nga fexe ba ni muy feeñe ci bitti muy feeñe noonu itam ci biir maanaam li ngay wane ci kaw ba doomu aadama yi di ko gis fexeel ba ba mu bu mu wuute ak la nekk ci sa biir sa diggante ak sa boroom loola nag lu am solo la ndax doomu aadama dafa am yu nekk ci moom yoo xam ne da ko bëgg lool mooy dafa bëgg nit ñi gis ko gisiin woo xam ne tagg rek moo cay tegu maanaam suñ ko gisee nii daal tagg ko rek lañ cay teg moom su sañoon su génnee ba ba muy duggaat këram ay tagg rekk lay dégg ba ba muy delluwaat nit nag su bindoo noona seytaane xam loola ci moom bunt boobu day jéem a jaare ci moom ba tax la muy def nit ña tax su yeexee rek zaahiram baax lool waaye baatinam nag digganteem ak yàlla lëndëm lool yàlla ñu yàlla musal ca lool moo tax istiqaama bi ngir mu am dëgg-dëgg nag du caagi ne da ngay sàmmoonteeg nit ñi rek de ba képp ku la gis ne ah, kii de moom mu ngi ci istiqaama ndax nangam lay def nangam lay def nangam lay def waaye fekk sa digganteeg sa borom melut noonu su boobaa yet yow ci sa bopp war ngaa xam ne listiqaama moom amoo ko su ko defee nag nga góorgóorlu jii ma dellusiwaat nag ci yoon wa kon dal nit ki ngir mu jaar ci listiqaama juróomi ponk yooyu faw mu daje ci moom léegi nag wasaa'il yi muy yi nga xam ne foofa la nit kiy jaar nag ngir am li ñu tuddee listiqaama léeg-léeg ñu ñu tudde ko jaaruwaay yi léegi léegi it tuddee ko ay màndarga yoo xam ne koo ko gis ci moom sooy boo nga am yaakaar ci ne kii am na listiqaama waaye ala kulli xaal ay tomb la yoo xam ne ki koy def borom bi tabaraka wa taala dana ko may listiqaama ba ca jëkk mooy saxoo di yeesal sa tawxiid foo toll di mucc lépp loo xam ne bokkaale la maanaam di daas bu doon paaka danga nga naan paakab tawxiid bi saa boo xëyee daasaat ko ndax loola moo lay musal ci lan ci bokkaale saa boo xëyee daas paakab sunna bi ndax moom it moo lay musal ci lan moo lay musal ci biddaa sa ñaari paaka yooyu yi nga xam ne saa boo xëyee mi ngeeg yow walla ñaari tànk yoo xam ne moom ngay doxe benn bi mooy tànkub tawxiit la boo xam ne dalay musal ci bokkaale beneen tànk bi nekk tànkub na boo xam ne moo lay musal ci biddaa ñaari tànk yi saa boo xëyee raxas ko ba mu set yëngal ko ba mu tànk su ko defee mu mën a dox dox boo xam ne dox bu jag la kon nañ def misaal bi mu nekk ab tànk moo gën def ko paaka ndax nit ñi dañoo ragali paaka jamono yi boo nee dañ koo daas ñu ne kon boo tuut day bëgg a def nangam ak nangam ak nangam kon euh, tong bu njëkk bi mooy wattandiku lépp luy bokkaale dundalal sa tawxiid jàppal ci sunna wattandikul biddaa kooku ci jumtuwaay yi nit ki di jaare la ngir bu ca saxee rek am na listiqaama ñaareel bi mooy ak tawassut wal i'tidaal wa tarku takallufi wal xuluwi wa tanattu mooy fexe nag ba looy def lu ne nga digg doomu ca ci say jaamu yàlla bul ëpp bul yées bul wane ci kaw lu diis te fekk ca suuf danga faa woyof tooy bul wone ci kaw ak woyof te fekk li ngay def daal na lépp ànd nekk menn benn mën xëj boo xam ne da góor góorlu ba doo ëppal doo yées ndax loolu mooy melokaanu dëgg dëgg dëgg jullit ni ko borom bi tabaraka wa taala waxe ne wa kadalika jaalnaakum ummatan wasata borom bi nee na dama leen a def ngeen nekk aw xeet wu digg doomu yéen xeetu muhammad sallallahu alayhi wa kon bul ëppal waaye bul yéesal itam ndax lenn lu ci nekk kat ab gàkk la boo xam ne su gaaree nit ki mën na koo yàqal muy jaamu yàlla ba ca tegu mooy saxoo di ñaan yàlla may la listiqaama kooku ci mooy la bokk loolu nag wax naa ne la bokk na ci yërmaande sunu borom tabaaraka wa ak ndimbalam ci jullit bii julli ci jullit bii julli bokk na ci yërmaande yàlla ci moom mooy bis bu set dafay ñaan yàlla mu gindi ko mu jaar ci siraatul mustaqim kon saxoo di ko ñaan lu am solo la waaye xamal ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne mooy imaami képp ku baax yemul woon rek ci ñaan ihdina siraatul mustaqim ci biir julli waaye daf ko daan ñaan lu bari ci xadisu umm salama nee na li ëppoon ci ñaanuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ëppoon li gënoon a bari ci ñaanuk yonent bi alayhi salaatu wa mooy yaa muqallibal quluubi sabbit qalbi ala diinik ñaan gi mooy gi ëppoon la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan mooy lan mooy yow mi nga xam ne yaay wëlbati xol yi su la soobee yal na nga saxal sama xol bi ci sa diine ji ñaan gu mat di baamtu la yaa muqallibal quluubi sabbit qalbi ala diinik su fekkee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne mooy yonent bi yëmul rekk ci ne man bés bu set ma danaa julli loo xam ne kenn xamul nu mu toll li may jàng ci ay faatiha kenn xamul nu muy toll te ihdina siraatal mustaqim ma nga ca kon loola néewul doy na waaye faf la ëpp ci ay ñaanam faf nekk loolu nag muy yow mi nga xam ne yaa yore xol yi di ko wëlbati na mu la soobe saxalal sama xol bi ci sama ci sa diine ji kon loolu noonu kenn ku ci nekk war nga koy ñaan lu bare bare bari ndax sunu borom tabaraka wa taala mën a saxal suñuy xol ca diine ja ndax ihdina siraatul mustaqim jooju yi nga xam ne moo ne ci biir alquran la chaque ne mooy ñaan gu màgg gi nga xam ne jamono yeneen di ko baamtu waaye léeg-léeg nit ki dana nekk ci jaamu yàlla ba mu yàgg mu mujj fa soppi ku aada te du ko yëg jamono yi nga koy ñaan sax sa xel nekku ci ne yaa ngi ñaan ihdina siraatul mustaqim saar la woo mokka rek di ko jàng farata li ci biir julli nga di ko jàng teewloo too ko loolu moo tax geneen ñaan gi nekk ci bitti julli gi nag am solo lool ndax xam nga ne nag jaamu yàlla saa bu demee ba soppiku aada saa bu ci yéene jóge rek day mujj soppiku aada moo tax jamono yi nga koy ñaan xol bi daa war a teewlu ne yow mii da ngay ñaan siraatul mustaqim boroom xam-xam di ñu wax ne gépp jaamu yàlla gu yéene jógee mu soppiku aada kon nag loola lu mat a bàyyi xel ba ca tegu mooy al istiaanatu billahi taala wa tawakkul alayhi dimbali yàlla ci lépp looy def ci sa xeeti jaamu yàlla ak wakkiirlu ci yàlla dimbali koo ko lim la may ci kàttan nga xam ne moo la ko may li nga ñàkk ci kàttan te bëgg ko nga dimbali ko sa boroom ngir def ko di wakkiirlu nag ci moom ngir mu di la àggaleel say mbir su ko defee loola dana yombal saw yoon ba ca tegu talabul ilmi shar'i sàkku nag xam-xamu diine maanaam mënee suta bañ a sàkku xam-xam ndax xam-xam kat mooy leer gi nga xam ne li feeg amoo ko nag doo mën a jaar ci siraatul mustaqim mi ngi mel ne rek ki jëm ci ab dëkk dëkk ba am na yoon wu jub boo xam ne ku ci jaar moom da ngay àgg àgg gu gaaw ndax yoon wa daa jub te yaatu waaye ki jóg laajul yoon wa ba xam ko mën naa jóg jaar ci weneen yoon defe ne ci yoonu dëkk booba la jëm yendoo dox ba ngoon te du tax mu àgg kon loola moo tax sàkku xam-xamu sharia am solo waxuñu ne nag ñépp bu ñu xëyee nañ fab seeni saag ak seeni kay ak seeni big dem jàngi noo ngi ci jamono joo xam ne njàngoom sharia jafeetul nit amul aw lay te njàngoom diine ni ko jullit yi ni ko nit ñi jàppee mbokki jullit yi maanaam demewul diisewul noona jafewul noona gindiku ci diine ci ki ko yàlla may lu yomb la yonente bi alayhi salaatu wasalaam nit da daan jóge ci ab goxam dikk tuub dugg ci lislaam nekk ak moom ñaar fukki fan ñaar fukki fan dëkk ko ci jàkka ji di xool julli gi di déglu jàngale bi muy jàngale su amee lu mu bëgg a laaj laaj ko ñaar fukki fanam mat mu ne ko dellul ca sab dëkk boo demee nga doon yilimaan ja di jàngal nit ña diini ci ñaar fukki fan léeg-léeg sax du ko mat kon diine ji ñaari ponk yooyu ma tudd sànq mooy bànqaas bi yow mii fexe nga ba mucc nga ci tawxiid eh, ba am nga tawxiid mucc nga ci bokkaale am nga sunna mucc nga ci biddaa yow àgg nga foo xam ne ci diine ñu bari àgguñu fa àgg nga foo xam ne ñu bari ñu jàng ay téere àgguñu fa tey kon yow fer nga ijji ci diine noonu laa koy faral di tudde fer nga ijji ci diine mënatuñ laa nax la ca des mooy jàng saar yi ngay jullee jàng jikko yu baax yi yooye ci biir lislaam mooy li gën a yomb rawatina nun ci jamono la nekk joo xam ne xam-xam xëttaloo na xam-xam tasaare nañ ko ci làkk yépp làkk woy làkk wu nekk tey boo duggee ci internet bi waxuma sax ngay ubbi ay page di liir ak a jàng waaye audio yaag vidéo yaag nga xam ne mën ngaa jaaxaan ci sa ngegenaay di déglu di jàng kenn xamul nu mu kon aw lay nit ki amatu ko fa boroomam tey ku wuy ji yàlla yóbbaale woo ab xam-xam amoo lay na la xanaa di yow maa baawalandoon xam-xam bi ba boo jaaxaanee ci sa njegenaay man di jàng booba loo ci man en kay rek lu teewoon nga tëdd ci sa blal di jàng booba ginnaaw noonu la yombe woon nit ñi dañ daan gàddaay jóge ci am réew ba cam réew ngir mën a sàkku xam-xam mu soob sunu borom tabaaraka wa taala mu xëttale xam-xam ya la nekkoon ca téere mu def ko ci làmmiñi doomu aadama yi ba ñépp mën koo dégg ku jàngut ne ca àll bu sore ba sax mën ngaa toog di déglu la ngay déglu xam-xam la boo ko xasee xam yaa ñépp ci yam kon sàkku xam-xam doon na loo xam ne mënta ñàkk ki xamut siraatul mustaqim kooku mënta jaar ci siraatul mustaqim ndax bala ngaa jëfee dara da ngay xam lu mu doon ba ca tegu ci jumtuwaay yooyu nga xam ne dañ dimbali ci listiqaama mooy luzumu arrufqati saaliha wut ay àndandoo yu baax àndandoo yu baax day dimbali nit ki ci mbaax safaan ba it safaan ba lay jur moo tax waxkat ba day wax ne an il mari la tasal wasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqaarini yaqtadi nee na bul laaj nit ki bul ñëw ci moom naan ko luy say jikko waaye laajal ka muy àndal luy jikkoom boo xamee ka muy àndal luy jikkoom xam nga jikkoom ndax inna tuyur ala ashkaliha taqaw loolu la arab wax nee nañ picc yi picc yi ngay seen ñiy naaw yenn yu ci nekk ña bokk luñ doon ñooy bokk di ànd di naawandoo waaye doo gis picc mu rëy moo xam ne beneen façon la mu ñëw jaxasoo ci picc yu ndaw ndawaan yi di ànd ñoom di naaw picc mu nekk ñam àndal rek ñoom la bokkal wirgo bu mu doon kon nit ñi noonu lañ mel groupe boo seen ñi àndandoo di dugg di ànd di génn di ànd di dem ñoo bokk luñ nekk kon nag yow mi bëgg ñi askane la ci ñu baax fexeel ba ña ngay àndal ñu doon say àndandoo yoo xam ne xam ne nit ñii ñoo di àndandoom ñooñu bu ñu xam ci ñoom lenn dul njub siraatul mustaqim jub xocc rek ci yoonu siraatul mustaqim jaamu yàlla jàng xam-xam jub am jom nangoo liggéey bu ñu xëyee dem ci seenu liggéey bu ñu wàccee dellu ci seeni kër lii daal lañ xam ci ñoom bu fekkee ñu mel noonu ngay àndal sa listiqaama dana mën a mucc yàlla na ko yàlla jàpp ndal ba ca tegu mooy mulaazamatul amali saaliha taqoo nag ak jëf yu baax jëf yu baax nag dafa yaatu amalul birri moom daanaka du jeex tàmbale ko ci birrul waalidayni rafetal jëmali ci ñaari waajur yi kooku ab tomb boo xam ne gannaaw bi nit ki jaamoo yàlla wéetal ko jàpp ci diineem lu gën a rëy rafetal jëmali ci ñaari waajur amut rafetal jëmali ci ñaari waajur nag mooy su fekkee ni ñu ngi dund xoolal li baax ci ñoom nga di leen ko defal xoolal wax ji neex ci ñoom nga di leen ko wax ñuy dégg di leen jàppale ci lépp loo mën fexe ba am seen ngërëm loola lu am solo la suñ dundatul te ay jullit lañ woon nga di leen ñaanal foo toll ñaanal foo toll bu leen fàtte ci ak ñaan jamono yu nekk sax na ci lenn ci aasaar yi ñu ne ña nekk foofe ca bar sax nga xam ne ñoo nekk fii ci àdduna ba faatu nekk ci seeni bàmmeel nekk ci dëkk bu ñuy wax bar sax nga xam ne foofa lañ nekk di xaar yowmal qiyaam taxaw ba kenn ku ne dem sa kër foofee ña fay nekk te nekkoon ci njub aw yiw da leen fay bis dañuy gis aw yiw woo xam ne dañuy jàpp ne àjjana sax mënta neex ba dàq lii waaye yiw woowee léeg-léeg dañuy toog ba mu yàgg muy yokk fekk li koy yokk lu mu doon mooy ñu baax ñu ñu fi bàyyi woon ñu di leen ñaanal mu ñëw ci lenn ci eh, asaar yi ñu ne bu ñu xëyee ñoom dañuy wax ne ndax yow tey yónnee nañ la dara kooku ne ah, waaw man de tey bi ma xëyee ba léegi wax dëgg ñaan yaa ngi ñëw kon xéewal yaa ngi ñëw léegi nga gis xëy ba ngoon ne ah, ma de daa mel ne gaañe dañ maa fàtte tey yónnee wuñ dara de kon yow mi doon doomam walla nga doon nàngamam xamal ne ñaan gi ngay ñaan di wax ne allahumma agfir lahu warhamhu yàlla yàlla na nga jéggal sama waajur wu góor yàlla na nga jéggal sama waajur wu jigéen wa baat yooyu ngay wax noonu bul ko xeeb ay dénd la leen di indil ci ay xéewal fa ñu nekk yoo xam ne moo leen gënal sax birrul waalidayni gi nga leen doon defal fii ci àdduna kon bul ne mukk rafetal jëme ci sama ñaari waajur faat na ndax ñoom ñaar faatu nañ déedéet bi ñu faatoo foofu nga ko gën a ne ñaan gi nga leen di ñaanal loola euh, fu ñu nekk da leen fay fekk te itam xéewal gu yaatoo yaatu lay doon ci ñoom kon bu sa xel nekk mukk xalaat ci nga naan damay jàpp benn bis boo xam ne saa bu ñëwee ma ne danaa def ngunum ngunum dajale ay nit ñi jël kaamelu alxuraan moo xam jàng nañ jàngoo ñu nga daal ne ñaanal naa samay waajur loolu loolu loolu amut amut solo li am solo mooy ñaan yi nga leen di ñaanal yow saa boo jullee waxal ca làmmiñ wa nga dégg yàlla jéggalal sama ñaari waajur ya yàlla jéggalal sama yaay jéggalal sama baay su fekkee kenn ko moo dem su ko defee borom bi tabaraka wa taala dana nangu sa ñaan boo yi kon birrul waalidayni bokk na ci jëf yu baax yi nga xam ne jullit bi war naa saxoo di ko def jokkoo ak bokk bokk ñi nga xam ne yàlla dalaa boole ñoom ñi doon say bokk rafetal jëme ci ñoom tuyaaba ju mag nga ci amee ñi nga xam ne ay dëkkandoo lañ nga rafetal jëme ci ñoom xaar ma yàlla bañ a dox seen diggante loola lépp amalul ah, birri ci la bokk baril ay naafi la baril looy joxe fi sabilillah baril looy sàkk sarax loolu lépp ci jëf yu baax yi ci la bokk weeru koor waa ngi nii di ñëw soreetut nekk weer woo xam ne weeru tàggatu la ci jëf-jëf yu baax kon lépp loo xam ne xam nga ne jëf ju baax la ci wàllu lu nit kiy jëf muy dellu ci boppam wala mu koy def nit ña di ko jariñoo xamal ne loolu lépp njariñam ci yow lay dellusiwaat loola lépp day dugg ci biir cadre istiqaama ci moyens yi ci la bokk parce que it nag mënoo ne dama nekk ci listiqaama ba noppi téye sa bopp doo jotee kenn dara te yàlla dafa am ñum la booleel dalaa booleeg ay waajur boole la ak ay bokk yoo xam ne da ngeen a bokk deret boole la ak ay dëkkandoo yoo xam ne nit ñaa ngi dëkk fu nekk mu tànn leen yéen ngeen bokk dëkk ci benn koñ ah kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne amut genn tànn goo xam ne daa nekk par hasard lu ci nekk dafa am àq ju dox sa diggante ak ñoom taxawe ko nag day nekk ci yow aw yiw woo xam ne wu mag a mag la woo xam ne day dugg ci biir al istiqaama ba ca tegu mooy qiraatul quraan al karim wa saxoo jàng al quraan al kooku moom bokk na ci bunt yi nga xam ne ci la sunu borom tabaraka wa taala di ubbile jullit bi lu nekk ci lu baax kon yow mi yéenee nekk am listiqaama di ñaan yàlla bëgg cee sax te bañ a soppiku ba keroog ngay wuy ji sa boroom saxool di jàng alxuraan saa boo jàngee alxuraan ba noppi tàllalal say loxo nga ñaan sa borom tabaraka wa mu may la listiqaama muy jub ak sax ca loola ba keroog ngay wuy ji sa borom euh, gàcce la gàcce la ci ab jullit mu bañ a yor wird ci alxuraan wirdu alxuraan mooy bis bu set am nga looy jàng ci alxuraan nga xam ne da nga koo sasoo muy guddi muy bëccëg moos vingt-quatre yi du jàll te jàngoo loolu saa boo ko jénnalee daa war a mel ci yow ne jënnal nga añ walla reer noonu la war a mel ci yow defe naa nit ki li ëpp ci ñoom duñ fàttee añ duñ ko fàtte walla suñ ko fàttee danañ ko daal di yëg lool ci seeni yaram balaa reer a jot kon nag jëlal sa wérdu alxuraan woowu yi ak nu mu mën a toll donte benn page ngay jàng ci kaamel bi nga xam ne da nga ne man lii fas naa yéene bés bu set ma jàng benn page moo xam danga nga koo jagleel boo jullee suba ba noppi wala boo jullee tisbaar wala boo jullee takkusaan wala sax bala ngaa tëdd moo xam sa waxtu nu mu demee waaye góor-góorlu ba page woowu yi nga sase moom na mel ne ndekki la moom bu bu mu faat mukk saxool jàng loolu soo noppee ci loolu tàllal say loxo sa boroom ñaan ko li nga bëgg jiital ca nag listiqaama lii de ku ko saxoo defe naa ne sa dund dana mën a leer nañ teyit lu yomb la nag ci ku ko yàlla yombal ci moom ki mën a jàng lu ëpp page mu def ko am na koo xam ne mën naa jàng bés bu set sax juróomi xisib am koo xam ne mën naa jàng bés bu ne ñaari xisib am ku mën a jàng lu ëpp loola kenn ku ci ne la nga man te muy mën a sax nga fexe ba loola doon sa wér di ci alxuraan nga saxoo ko di ko def nit ñaa ngi sonn ci diine ji ci yu baree baree bari yoo xam ne ñi ngi ciy def waxtu yu bari jàpp ne ci diine ji la bokk te fekk bokku ci waxtu yooyu suñ ko jëloon def ko ci li nga xam ne kenn nattablewul na ci la bokk muy alquranul karim mii kon dara ci seen waxtu du sànku kon nañ dellusiwaat jii ma góorluwaat teguwaat siraatul mustaqim fukkeel ba mooy at tafakkur fi maxluqaatillaahi azza wa bokk na ci liy dimbali nit ki ci mu gën a sax ci diine ji gën a am listiqaama mooy di xalaat ci bindee fi sunu borom tabaraka wa taala loolu dafay dolli imaan day dolli gëm yàlla sunu boroom tabaraka wa amut lenn lum bind loo xam ne da ko bind rek ci hasard noonu loolu mu wax ne wa fi anfusikum afala tubsiruun jëmmi doomu aadama ci boppam rek ni ko yàlla binde bala ngaa xam ne sunu borom tabaraka wa mooy kenn mooy dangaa gis doomu aadama ju dem ba ñàkk benn cër ci cëram yi ñi bëgg koo defaraatal beneen bu ko mën a wuutu bët bi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala mën na ko bind borom mën naa dund juróom-ñett fukki at muy xoole dara du ca sikk bu xoolee di gis diggante bi muy amee problème rek nga xam ne ab docteur boo xam ne dañ ne daa jàng ba nekk professeur spécialiste ci lépp loo xam ne wàllu bët la lam cay daj ngir bët bu lëndëm bi mu jéem koo leeral lu ne xeetu ndox wu nekk danañ ko ca toqal làmp bu ne danañ ko ca niit lu nekk danañ la ko defal ci ay pikir ak yu kenn xamut lu tax mooy bët yu lëndam yi rek nañ ko jéem a leeral nga xool nag ka bët yooyee ba mu ne cëpp ci suuf di xoole ànd ak poussière beeg ngelaw yeeg fenn fu nekk mu di fa xool ba boroom dund juróom-ñett fukki at léeg-léeg téeméeri at mu yor ñaari bëtam di xoole dara sikku ci kooku mooy kenn boo demee ci nopp yi noona nga dem ci loxo yi dem ci xel mi dem ci kàttan gi ay force yoo xam ne sunu borom tabaraka wa taala def na ko ci doomu aadama ci anam goo xam ne moom rekk moo xam li mu def lu mu doon lépp doon loo xam ne ci benn béréb lay dellu muy li ñu tuddee cerveau muy ak yuur goo xam ne luy yëngu ci doom aadama lu ne rek am na place foofa boo xam ne moo ko yore muy ay ay mbir yoo xam ne bu ñu la ko wanoon bu ñu la doon won naan la lii moo yor gis bi lii moo yor dégg bi lii moo yor tànk bi dox lii moo yor loxo bi yëngu lenn lu ci nekk amu ci lenn loo xam ne ëb riyaayam toll na ne benn fepp suuf ay tomb yu tuuti yoo xam ne ci machine lañ ciy teg nga door koo mën a gis ñu ne la tomb sii ngay gis kat moo yor waaxu mi ngay waaxu di deme ko ñëw bu ci dara si koon rek nga paralysé côté boobu dutu yëg dara ndax tomb sii moom la dara laal te waru koo laal yooyu yépp sunu borom tabaraka wa taala boole ko dugal ko ci benn kël defaral ko benn yax boo xam ne ñiy gëstu ci wàllu xam-xam yooyu yax bi nga xam ne moo wër boppu doomu aadama ñi koy tudde jum juma mooy li gën a dëgër ci àdduna mooy li gën a dëgër ci àdduna dug weñ du ciment du lenn lu mel noonu moo tax ba léegi léeg-léeg nga dégg ñiy gëstu ci wàllu jeexit yi ñu ne la for nañ bopp boo xam ne dund na lu mat million ci ay at ñu sulli ko génne ko mu doonaat bopp yax ba ne fa ndax amut lu ko yàq suuf du ko lekk luy lekk du ko mën a lekk du seey du def nenn na mel noonu la ko yàlla binde loola moo tax xarañ googu sunu borom tabaaraka wa taala xarañ loolu yi nga xam ne moo yore dunduk doom aadama ak yëngatoom ak xalaatam ni mu sensible mu dugalalal ko ci këll bu dëgëre noonu tëj ko nag nga xam nit ki mën nay daanoo ko xalangoo ko sëpp yàlla ña ko jóg di diju këll boobee nam mel ak ya ne ca biir du leen wàññi dara ndax dëgëraay ba mu dëgër ak nañ ko binde ca biir foofa kon xalaat ci bindee fi yàlla yi te tàmbalee ko ci sa bopp loolu dana dimbali nit ki ci dolli ko ngëm yàlla mu xam ne yàlla dong mooy yàlla keneen ku dul moom doo kenn loola dana dolli nit ki ngëm yàlla te lu lay dolli ngëm yàlla lu ne daf lay dolli listiqaama da'wa rabbi barik fiha ulama afadil والحفظ عليها دعوة وربي يبارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وأقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس سلفي وأقولها لأي جليس دعوى عظيمة وفخر أنيس شفت القيم أبو إدريس علي وحكمة مسخروا ليها علي وحكمة مسخروا ليها دعوة وربي يبارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها دعوة وربي